maa ngi leen di nuyu di nuyu aussi waa Mbàkke Bawal di nuyu aussi ñi nga xam ne ñoom la àndal muy les membre de l'ODCAV ñu ñëwoon tey jii ci stade bi xool chantier bi fan la toll liñ fi gis nag dal na xel parce que gis nañ ne travaux yi li fi nekkoon ci liggéey amatul lu ci des jël nañ image yi dugg nañ ci ruq-ruqaan yi stade bi yëpp terrain basket baa nga nale terrain handball baa nga nale ñi ngi taxaw nii si digg terrain football bi projecteur yaa ngi nii tribune baa ngi si suñu ginnaaw ñu koy gis donc kon jàpp nañ ne stade bi pare na comme stade bi pare na dañ si gërëm ministre de sports gërëm ci aussi le premier ministre ministre des sports parce que wane na ci ak cawarte wane na ci ne kat véritablement Stade Mbacké ñor na ko parce que en un laps de temps moins de si mois mën nañu wax ne liggéey nañ ci stade bi ci waroon a liggéey lépp mu pare maintenant ginnaaw pare na nag ñunu jàpp nañu ne véritablement am na ci jaajëf leneen li des nag mooy en tant que ministre des sports ñun dañ koy demander mu ubbi stade bi mu ubbi stade bi nag sans délai aussi parce que nitu Mbàkke yi sportifu Mbàkke yi mënuñu toog continuer di euh, di xaar stade bi pare ñu koy tëj c'est pas normal tey dëkk yi nga xam ne ni am nañ stade stade ba nekk en chantier sax ubbil nañ leen ko ñuy football rawatina Mbàkke ren mooy suñu quatrième année boo xam ne nii benn activité sportive Mbàkke amu fi parce que du du football euh, du footballu euh, civil du du football mouvement de masse amul benn bu fi am comme estade bi pare na donc ñun jàpp nañ xaar amatu ci donc su fekkee ne mi ñuy dégg wala am na ñoo xam ne ñuy dégg ñu mën ko jottali suñu message nañ ko wax ne ko waa Mbàkke nee nañ nga programmer wax ak président de la république mu jox la ordre nga ñu ubbi leen stade bi parce que loolu rek la ñuy xaar ñun ñoo représenté équipe yi équipe yi ñi équipe yi li gën a graaw si loolu sax parce que dama ci dama ci dama ci sawar a wax parce que équipe bi dañoo def seen formalité yépp def nañ euh, réaffiliation affiliation démission équipe yi actuellement nii ñu ngi période defar licence structure bi nga xam ne nii ci lañ nekk dans la nawetaan aussi li mu waroon def lépp def na ko parce que comme euh, ni ñu ko xamee defar licence yi maintenant c'est des licences numériques appareils yi ko war a defar yooyu dañoo jël suñu moyen dugal ko si structure euh, structure bi jël moyen dugal ko si ASC di fay di defari licence donc ASC dañoo daj jël seeni mooy dugal ko si investir nañ seen mooy ba pare donc kon ñun ak ñoom ñoo bokk lu ñuy def amoon nañ 46 ASC yoo xam ne ñëpp engagé wu tey fii ñu taxaw nii di wax ak yow pour pare pour football la nawetaan parce que commencé woon nañ un tournoi boo xam ne ni ñu ngi ko doon joué ci ci ci ci école yi bientôt école tijji na kon premier ministre ministre des sports ñu ngi lay interpeller encore une fois Mbàkke ay jeunes lañ bokk ci Sénégal wurtu nekk exception bërki Dembo Ndiaye dama koy wax suñu club bu Mbàkke fierté de Mbàkke ma leen di jaajëfal di leen wax di courage parce que xëy na yoon yëmul si benn bërki démb dañoo dem euh, euh, Patte d'Oie doon fa football stade bañ leen bañ leen bañ leen recevoir stade ba parewul te ñu ngi koy football en chantier la nekk fa lañ leen gañee ñu ñibbisiwaat Mbàkke tey estatu Mbàkke bi yow mi journaliste ñun ñu ñi ñi nga xam ne nii ñoo ñu seetaan ñëpp xam nañ ne estatu Mbàkke amutul liggéey bu fi am li gën a garaaw sax dama koy wax parce que tey soo duggee ci stade bi dootoo gis loo xam ne nii maçonnerie moo ko war a liggéey lu menuisier métallique war a liggéey lu kenn war a liggéey stade bi amatul ab ouvrier bu fi nekk war a liggéey preuve ci temps wu màggal bi dégg nañ Mbaye Faye mu wax ko kon véritablement ñu jàpp nañ ne le premier ministre li nga nekkoon jaajëfal nañ la si waaye lii aussi waa Mbàkke mënuñu toog di xaar stade bi di tëj kaay ubbi ñu ko ñu def ci suñu activité parce que nawetaan lañ ci bëgg a def ak sport yi nga xam ne nii war nañ am ci estade bi yëpp kon véritable loolu moo taxoon tey ñu ne nañ fi ñëw waaw non charge yi non seulement diis na mais aussi temps bi ak école mi ngi tijji aussi wax naa ko on avait 46 ASC au départ ñu commence bi ak école mi ngi tijji aussi wax naa ko on avait 46 ASC au départ ñu commencé jouer première journée évaluer journée bi gis ne avec le temps mënuñu jouer actuellement nii si école yi continue donc école mi ngi tijji bientôt moins de vingt jours école tijji ñun ñëpp xam nañ benn autorité accompagner wu ñu ci loolu mais amoon nañ suñu moyen bopp yu xam ne ni pare na woon nañ pour utiliser ko tak commencé nañ ko dépenser defar nañ euh, terrain bu njakalak bi nga xam ne fa école ba ba commencé woon fa football donc kon ñun ñun ak ASC engagé wu nañ pour waroon a jouer le nawetaan benn alternative moo fi am mooy stade bi nañ ko ubbi jox ko ñi nga xam ne nii ñooy sportif yi ñu continuer fi seen seen activité j'interpelle encore une fois le premier ministre ministre des sports ñu koy ñaan li nga xam ne nii def na ko boobu ba léegi Mbàkke yëpp salué nañ ko ci parce que diligence la engagement la volonté la kon li ci des mooy na amaat diligence am volonté wàcce boppam daal di ñëw ubbil ñu stade bi ñu def fi suñu activité merci. waaw asalaamaaleykum mbokki jeunesse bi mbokki Mbàkke ah man la Maïssa Sélé Dieng président zone nekk secrétaire du conseil communal de la jeunesse d'ailleurs fi may waxee rek euh, bi Ndiaye si waxee ci affaire stade bi man damay wax ci affaire conseil bi parce que conseil bi dafa nekk lieu boo xamante ni pratiquement mën na 17 mois yoo xam ne dañ ko defar ba mu pare ñu tëj ko. je pense que infrastructure bu toll noonu nga xamante ni état moo ko jagleel mairie bi defar ko jàpp nañ ñun waa ODCAV rawatina waa conseil communal de la jeunesse ak jeunes yëpp bu ñu defaree édifice bu mel noonu war nañ ko war a mën a ubbi je pense que loolu moo tax tey jii ñu ñëwaat tamit di waxaat ndax ñun muy jeunes yi fi ñuy nasee buñ bu amul fu ñuy nasee dañuy am problème parce que boo xoolee li waral problème yi jeunes yëpp amul fu ñuy dajee dañuy eere ay école école 1 la ñuy eere te bu ñu fa demee lu ñu bëgg duñu ko am kon ñu ngi interpeller le maire parce que moom moo yor compétence su euh, le le bâtiment du conseil communal de la jeunesse mu xam ni loolu mu tëj amul sens parce que soo fa demee situation bi dafa commencé dégradé wu ñu ngi doon wax cahier de charge moo des je pense que cahier bi kon dafa diis ndax cahier boo xam ne plus de trois cent soixante jours bu ñu ko doon évaluer en page donc cahier bi war naa def presque quatre yoo xamante ni ba léegi nii cahier bi mënuñu ko ubbi kon man jàpp naa ni monsieur le maire bu fekkee yaa ngi déglu waa Mbacké sa cahier de charge bi war nga ko mën a boucler jël édifice bi jox ko jeunesse si séddale leen ko ñu dem épanouir fa dañ fa war def ñu def ko tëj ko amul benn njariñ je pense que dañu war a progresser avance ñun waa Mbacké mais warul nekk benn contrainte boo xam dañ koy téye pour ay affaire politique politicienne parce que politique moom baax na trop mais bu ñu defaree benn affaire infrastructure bu tool noonu ba mu pare man jàpp naa ni Euh, ki nga xamante ni mooy compétence muy le maire di ko di ko di ko di ko woo muy monsieur Gallo Ba ministre de la fonction publique zone Mbacké ñu ngi lay ñaan nga ubbi conseil communal de la jeunesse ubbi bureau yi attribuer leen ko nit ñi mën caa def seeni activité donc loolu daal moo waraloon tey jii waxtaan wi nga xamante ni bëgg nañ ko cee yokk au delà du stade ñu yokk ko ci conseil communal de la jeunesse